ngeek euh, sëriñ Abdoulahi Mbacke ñu gën koo xam ci sëriñ Abdou Koumba Suuna moom Cheikh Mahamadou Lamine Baara Mbacke sëriñ bi ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar la di la ñaanal tey sàkku ci yaw ñaan ñu bëggoon a xam ci yaw tuuti rek mooy ci man at nga feeñ jamono ak sa waajuru jigéen naka la tudd ak ñan ak ñan ak ñan nga bokkal waajuru jigéen. kon daal maa ngi judd le 3 mars 1933 Mbacke Kajoor laa juddoo sëriñ Modou Baara it moo ma jox ab jàngu maa ngi nekkoon sama kër Mamadou Fatma Tall. sëñ Madou Fatma Tall moom ak Bintu Tall mi jur ko matuwoon la ñoo bokk ndey ak baay Madou Fatma Tall ci teelu la bokkoon këram laa nekk maanaam ba sëñ ma joxe ab jàngu kër sëñ ñaan la ma joxe kër maa ngi fa dem te ma juróom-yaari at nekk fa ba 1946 laa dem ci loxol sëñ Mbàkke Madina 1946 ca xëytal weeru barax lu fi sëñ Modou Sa jógee ba mu deltee ci déwénte laa dem ci loxol sëñ Mbàkke Madina ñi ma bokkal ndey it maanaam mu di maam xëri laa bokkal ndey moom mag maam xëri Mbacke ak man Abdoulahi Mbacke mi ak ku ñuy wax Fayti noo bokk ndey noo ñett ñii noo bokk ndey sama waajur it bu fi sëñ Baara jógee it góor gi Balla Joor lool lañ ko jox ci tundoo di fa la nekkoon bu yàlla dogal nag fa la amee benn doom yàlla dogal ma faatu fa sëñ du Baara nag moo ma jox ab jàng kër si ñaan Jóob ba ma fa joxe ah doom jooju nu mu tuddoon kan ci ki nga bokkal waajur mu jigéen tam sant Lo sam sant Lo kooku moom dafa judd rek faatu ah, kooku dafa judd faatu ah. dama bu fi sëñ Balla jógee Balla Dior loolu lañ jox sama yaay góor gi Balla Dior loolu doomi nijaay sëñ Mor Moussa la maanaam moo jur moo jur moo jur Moustapha Ngañ ak naar Louga mii ci marché Daaru Xudoot mu seen baay lañ joxoon sama wajuru jigéen maanaam moo am fa benn doom yàlla dogal na doom ji dund lu faatu ca sama ndey booba la faatu muy at moomee xaw ma nag ma xaw ma nag man at waaw jàppati ma ko waaye noonu la demee sëñ Modou Ba moo ma joxe ab jàng ko sëñ Ñaan Diop moo may moo may moo ni wane Serigne Diop Serigne Diop ñaan fekk naa ko Serigne ñaan Serigne ñaan mu jur Serigne Diop fekk naa ko muy dund waaye sëriñ Diop moom at mi ko bëtam yi dalee maanaam dafa wër doon ñaan ba dikk fi sëñ Modou Bara ba mu fa dikkee sëñ Modou Bara doon nañ kilifaam ba mu fa dikkee sëñ du Bara xamal ko ne ko dama bëgg yóbbaale Abdoulahi mbakk mi boo demee na ko yóbbu sëñ Abdoulahi mu Dóoru Rahman mu sëñ Touba nag moom la ko sëñ Bara tudde ba mu demee bu jub Dóoru Rahman it yàlla lu mat juróomi téeméeri nu daje sëñ Abdoulaye waxtu weer weer muy doxantu ba nu demee fe bëkki néeg ba maanaam fekk fa bëkki néeg ba nu laaj ko mu ne nu dajalu leen kenn nun ko enquête ah dajaloo kenn mu ne sëriñ bi bu jàngee ba ba yor yor day génn di doxantu loolee nu mu tekkil nu fas wa ba nu wa nu bokk fa yandu nu tekkil nu fas wa dalal nu ba sëñ Abdoulaye dikkee sëñ Jóob ñaan ci boppam yóbbu moom sëñ Abdoulaye boobu maa ngi si juróomi juróomi yetti waaw man na juróomi juróomi yetti at boobu maa ngi si juróomi mu ne ko kii loolu sëñ Baara Mbacke tudd nu yendu fi ba ngoon keroog ceebu ganaar lañ fa toogal ci jeexital guerre bi lañ fa toogal nu go nu gontaan ñëw lii daal la kër sa ñaan jub nag fa laa jànge maa ngi maa ngi dem mbulkaayal mille neuf cent cinquante deux gannaaw ko sëñ ñaan Diop gannaaw ko sëñ ñaan maa ngi di maa ngi gannaaw ko sëñ maa ngi dikk ci loxol sëñ Mbacke Madina weeru barax lu fi sëñ Moussa jóge ba deux ci dem si xëyte laa dikk ci loxol sëñ Mbacke Madina nekk dama ak sëñ Mbacke Madina ñeent fukki at yu manqué benn nekk nañ ko. naka nga def ba ñëw ci loxoy sëñ Mbacke Madina. sama mag yu jigéen. moom bind ab lettre boobu ba muy dëkk soxna sëñ Mbacke Madina maa ngi fukki at ak yet sama mag yu jigéen maam Xëri Mbacke sëñ ma maanaam moo ko yar ndey sëñ Mbacke Madina moo ko yar maanaam ba tax moom bindu lettre boole ma ak sëñ Mbacke Madina booba xale laa ma dem ci loxo sëñ Mbacke Madina ma fi demee am naa fa am naa fa ci ànd ma ak sëñ Mbacke Madina ñeent fukki at yu manqué benn da nga de maanaam ba mu fi jógee fanweeri at la ci ren bi muy juróom-ñaar fukki at yi manqué benn lii daal ci sëñ Mbacke Madina laa ko nekk ci loxo moo ma yóbboon Mbul Kaalit ma nekk faak man man Abdoulaye Mbacke mii ak sëñ Abdou Baaxam sëñ Massamba mii faatu ak sëñ Cheikh Assou Fall ma faatu ak sëñ Moutaxa mii ba ma fa jógee it maanaam maanaam ba ma fa bokkee na ci benn nekk maa moom ak ak Abdou Baax ak ak ak Cheikh Assou ma jóge fa moom te ma jóge fa am na fi benn ba ñaari at ñaar fukki weer ak ñeent ñu ñaar bokk lal ñu ñaar bokk lal ba mu fa jógee it moom mu dem jàngaati ma dem man euh, ma dem njëriñ ba ma demee njëriñ sañ ma dem jàngal na ma ci làmmiñam mu mag ma sëñ ma leen Jóob jàngal na ma ku ñuy wax xaas sëñ ma leen Jóob waa na jàngal na ma maanaam ku ñuy wax xaasaasi jàngal na ma sëñ Abdou Lahad moo ko jóg moo ko mujj toxal indi ko Touba Belel gii asaasim waaw asaasim waaw asaasim sëñ Abdou Lahad moo ko mujj toxale njëriñ andi ko andi andi ko andi ko toog bell bi ba fi la nekk ba faatoo ba ma fa jógee nag maanaam ma ba ma jógee nag man mii nag laa dikkaat Madina maanaam maa ngi ci fukki ak juróom-ñeent ba gannaaw ba ma jógee ci daara ba ñu bis fukki at ak juróom-ñeent boobu ba fi mu toll lu ma xam ci maanaam lu ma xam ci maanaam ci Sëriñ Touba ak lépp sëñ Mbacke Madina moo ma yar ànd nañ ñoom fukki at yu maa ci benn am na ba fi jógee fan yaaraat lu ma xam ci sëriñ Tuubaa ak kilifa yi ak yoonu murid lépp ci sëriñ Mbàkke maa laa ko xam keppaaram xam naa ci yoonu murid loo xam ne it bari na ko fi mbooloo topp te li ma xam xamoo ko ak mbooloo ma ñu topp ndax lépp dafa mujjoon daje ci loxo sëriñ Mbàkke Madina te sëriñ Mbàkke Madina am na ndéw yi daa xam ne daanaa ko fekk ak ndéw yoo xam ne du ko fekk ak ndéw yoo xam dañ ma ci boole ak ndéw yoo xam ne boole loolu daal am na ci moom xam naa ko moom. wér say say doomu baay mooy ñu nga seqal Cheikh Mamadou Lamine Baara. waaw am na ci ñoo tudde doom yow. am na ci. yow ñoo xam ne yow yaa leen yow yaa leen tudde doom. waaw tudd tudd naa ci. sëñ Baara Mbacke laa tudd doom bi ngi laa jëkk tudd doom. dégg nga waaw. man tudd naa sëñ Abou Mbacke. tudd naa sëñ Abdou Khadim. tudd naa sëñ sëñ Abdou Laat. tudd naa sëñ Moussa Seyne. tudd naa sëñ Abdou Aziz. sëñ Mbacke moo ma ñëwoon tudd ko am tudd gun weeru si doom ma ne ko dégg mun mun ma tuddee ko te fere nga jox ko moom moo ma ko wax ci lamiñam ma ma maanaam tuddee naa it su Cheikh Soro doom Cheikh Soro suñ ñaari maam bokk ndey ak baay Modou Fatma Tall Bintu Tall ñoo bokk ndey ak nii la demee. guy mbind itam amoon kër waaye dama ko mujj joxe. waaw guy naa fa kër bañ ko liggéey kër googee booba aw ma doole ju ko defaree dégg nga maa de maa Cheikh no su soowoon kër booba aw ma doole ju ko mën a defaree te mosuma teg sëñ Mbàkke man benn soxla boo xam ne daa jaanoon man sama jaanam ne ko dama bëgg nangam te mosuma ko boobu aw ma doole ñu ma ko defar moo tax Cheikh Thioro joxe kër googee fii la demee. Cheikh Thioro yéen a bokk. mag ak rakk ngeen ginnaaw. moom a mag yéen a bokk wàllu. suñu ñaari maam daal bokk ndey ak baay ki jur ndeyam. moom mooy Madou Fatma taal kii sama ndey mooy Binta Tall Binta Tall Madou Fatma Tall bokk ndey ak baay. nga xam ne ñaari sañ-sañ ci yow muy sañ-sañu uh, bokk ngeen bokk Cheikh Mamadou Lamine Bara. ak moom ak ma sañ-sañ ak ak sañ-sañ bi nga xam ne yéen a ko bokk ci wàllu waajuru jigéen. waaw waaw loolu laa xam ne ci moom bat soore mais daal maa maa maa baam suñu ñaari maa ma bokk ndey ak baay. Mhm. noonu la demee. Mhm. noonu la ginnaaw foofu itam naka nga def ba sëñ Mbacke Madina jëlee la la fële nga xam ne moom mooy la Madina yóbbu la <laughs> yàlla dogal na sëñ Mbacke Bande dana dama ne wan wax soo bëggee soxna ma nga ma ko yëgal ndax kat sëñ Baara Mbacke day maanaam maanaam mbooloo lañu waaye mel moo ci féetee man loolu it la ko waral it bëgg goo xam ne sëñ Baara na ma ko man sëñ Mbacke Madina mi boo fu mu nu masaa jege maag Cheikh dana ma wolu sëñ Mbacke Madina fu mu fu mu nu masaa jege maag Cheikh dana ma wolu loolee nag xam naa la ma yàlla indi loolu la ma yàlla indee ci loxo kon nag léegi ma kon nag léegi dama bëgg waxtu woo bëggee soxna nga maanaam nga leeral ma ko yàlla dogal na nag it am na ku ma jëkkoon bëgg it yàlla dogalu ko xelam ko war a jàpp na ma boobu it ba mer naa ca gannaaw bi nag it ma dem fekk sëñ Abdou Aziz Jumaada mu laaj ma ni ndax amagu nga soxna wala amagu soxna ma ne amaguma soxna sëñ Abdou Aziz na ni ma waxtu boo xam ne yàlla dogal na am nga kilifa da ngay nangu ñu wutal la sa soxna su jëkk ba ma dikkee fi sëñ Bass ma man ne ko mboolem lu ma weesu woon maa ngi koy tuub maa ngi koy rëccu léegi koo ma taamul fekk naa la ci mu taamul ma soxna suñu wax Rama Jéy ma ma maanaam jox ma ko ban amee indépendance ci déwénte laa samp kër ban amee indépendance ci déwénte la ma sëñ Bass ma dina sampal kër toog na waa si maanaam ab biir boo xam ne it laaj foo bëgg a dëkk man ne ko taw moom fenn foo ma foo ma dëll rek fekk naa la ci mu maanaam mu indi ma door Rahman gee ma nekk benn bisit mu wax ak njëkk sama xarit woon ne daa ne njàkk daa bëgg nga laaj ëpp bi fu mu bëgg ma dool ko fa nu reer ba noppi njàkk wax ma ko ma ne ko taw moo fenn fu ma dool rek euh, fekk naa ko ca mu bàyyi ma dee raxmaan géema nekk tey jii xamal ma ni ma nit munul fenn fa ne daa bëgg ne ci dëkk bi nekkal na fi nekkal na fi nit munul fenn fa ne mu ne fi daa bëgg ne ci dëkk bi nekkal nekk seen dëkk bi lii moom ma bàyyi dee raxmaan ma ne ko man de wax yàlla damaa def nit koo xam ne damaa toogul mu ne ma bu dee loolu da nga toog moo a dott fa Daaru Rahmaan gee nekk bu ma màggasee ak fu mën a jamit Daaru Rahmaan laa xam moom laa bëgg fa la ma yàlla fi dël muy Daaru Rahmaan gee ma sëñ Mbàkke mat ne dëloon ginnaaw Daaru Rahmaan sëñcoo yow wala wala nga nekk feneen foo xam ne bokk ak Daaru Rahmaan mu gannaaw Daaru Rahmaan daal am am sëñ Siidu Maxtaar Mbàkke jox na ma ma ma doomam jox na fii ñaari pàkk fi Touba ñaari pàkk benn ba muurlu naa ko ba mu nekk benn bunt ma defar lu ko maanaam benn ba jox naa ko sama doom muy Baara Mbàkke da nga wax de jox naa ko sëñ Saliou lu it jox na fi juróom-benn pàkk juróom-benn pàkk yi gannaaw bu fi sëñ Saliou jógee lëtis am na ca ba ñeent pàkk laa joxe ñaari pàkk yi dugg na ci maanaam ñu ngi fi bàyyi woon gannaaw jëriñu ma ko waaye yi ñeenti pàkk yi moom jox naa ko sama sama njaboot juróom-benn pàkk la ma joxoon dama doon laaj foo bëgg ma ne ko daal ma ne ko yoonu maanaam Mbacke bi moo ma gënal mu boole maag Ah, Saliou Cissé. Saliou Diakhaté Saliou Diakhaté. moom Saliou Diakhaté la ma booleel ba moo sës moom Saliou Diakhaté la ma booleel. noo àndandoo ba demee mu jox ma ma ma ànd ku ñuy wax maanaam Abdoulaye Sène ma nga dëkk Ndiané moom laa àndal leen maanaam mu Abdoulaye Sène jël taxi boobu nu dem pàkkee Saliou Diakhaté jox ma ko. jox ma pàkkee wan ma ko mu juróom benn pak jox fa sëñ Wéru Mbàkke juróom juróomi pàkk man man juróom benn pàkk la ma jox jox sëñ Wéru Mbàkke doomi sëñ Mbàkke ma ne juróomi pàkk noo bokk benn buloo loolu daal sëñ Saliou defal na ko bi mu daata bi mu daata génn àdduna tudd nga ko doom sëñ naa ko doom it waaw loolu daal am na sa diggante ak say doomu baay mooy ñi nga xam ne ñoom nga seq ak Cheikh Mamadou Lamine Bara ñu nga seq sama daay maanaa ci nu muy demee daje yi ngeen di def ak gis yi ngeen ah, daje yi daal maanaa dëkku man Mbàkke Kajoor dëkku may gumi na waaye ndaje ma xew te mu leer ma ne maanaam man na yëg naa ko te war faa teew danaa fa teew ba am naa kër Mbàkke Kajoor boo xam ne samay doom ñoo ko miiral mu di ak ñoo ma bokk néegum ndey ñoo ma ko fa defal muy ñaari pàkk la ñu fa dëppaleel ba fi mu toll bu ma dee Mbàkke jot fa laay dal si ma bokkal baay it jàmm ak salaam la la moom laa seq ñoom it ñu ma bokkal sëñ Baara Mbàkke ñu ay sëti sëñ Baara Mbàkke it jàmm ak salaam ak lu rafet dong laa seq ñoom ñii sëti sëñ Baara Mbàkke yëpp jàmm ak salaam ak lu rafet laa seq ñoom ñu ma bokkal baay it Sidi Maxtaar it am na lu ma waxoon it fekk naa ko ngànn xumma Sidi Maxtaar mu xamal na ni ma bi fi sëñ Baara jógee moom Sidi Maxtaar way juróom bu jigéen ak suñu soxna Mariama Kebe ak sama yaay Kumba Suuna Lay ak soxna sant Jóob ñoom ñeent ñi Mbàkke Kajoor la ñu muuroo fa lañ liggéey le sëñ Baara ku ñu ma ko da kase tool bi sëñ Baara bu mag koo xamul dégg ko moom la moom moo leen fa nekk amee leen fa ba ñu muuru ba summi ko lii daal Sidi Maxtaar wax na ma ko man ca ngaan na ko ma nee na ma daal moom Sidi Moxtaar Mbàkke ci boppam waajuram ak soxna Mariama Kebe ku sëñ Baara doon denc moo jur Cheikh Mariama Kebe ma faatu moo jur taw sëñ Baara Mbàkke bi ñu joxoon sëñ Mor Abdou Sëy soxna Mariama Kebe moo jur taw sëñ Baara Mbàkke bi ñu joxoon sëñ Mor Abdou Sëy Sidi Moxtaar daal wax na ma lii waajuram bu jigéen ak soxna Mariama Kebe ak sama waajuru jigéen ak soxna sant Jóob boole leen ak Makko Dakar ñoo fa nekk non fa lañ muuroo ñoom ñeent ñi fa lañ muuroo Mbàkke Kajoor maanaa ba ba muri kii Sidi Moxtaar Mbàkke daal na ma lii moom bu fekk naa ko ngaat na ko moom mu leeral ma lii lii daal na ci moom ñi ma bokkal bàyyi nag it wax dëgg yàlla jàmm ak saam ak sëti sëñ Bara ndax nii fi nekk it wax dëgg yàlla bu fekkente ne maanaam seen xam-xam bari na ci bari na ci sëñ Modou Bara it xamuñu sëñ Modou Bara lu bari ci sëti sëñ Bara yi laa wax de xamuñu sëñ Modou Bara lu bari ñu ko ci xam bariwul da nga la wax de sëñ Bara Mbacke ñu ñi ay sëtam te ne ci kaw xam sañ ñi ci xam sëñ sëñ Modou Bara jaxasoo moom bariwul ndax fekk nañu ay gone loolu daal li tax ma laaj laaj boobu mooy sëñ Mbàkke Madina daf la doyal euh, xombal euh, ñi la xam bariwul ñu bare bari sax ci at yii rek lañ tàmbalee xam sëñ Abdou Koumba Suuna hmm. muy làqu gi nga làqu moom moo waral lool loolu moo tax rek ma laajoon lii ba xam ñoom itam ba nëgë ni ñi ngi ñi ngi ñi ngi xam bu baax sëñ du kumba Suuna am na ci ñoo xam ne ñu ngi may topp rek dafa jaar ak ñoo xam ne xamuñu ko hmm. am na ñoo xam ne xam nañ ko ma maanaam li ma yàlla dooru ko sax na ba tey loolu maanaam dooru ko du lañ ma féetale hmm. man am na ñoo xam ne xam nañ ko ci ci sëti sañ baar yi dafa jaar am na ñoo xam ne it xamuñu ko baa buñ xam ne doxaluñ ko man na xam xam nañ ko waaye doxaluñ ko tey nag xëy na loolu lépp nag meloo adduna ak meloo jamono ji moo leen jàpp xëy na am nañu barke wala wala leneen te loolu loolu yàlla dogal na xëy na moo leen réeral ci googu wet waaye man daal foo ma nekk ndigal sëñ Mbàkke maa di moom fa bàyyi loolu daal mooy lu wér li jërëjëf Mbàkke jërëjëf jërëjëf loolu daal